waa ah, IMSEC mu nekk institution bu de microfinance boo xam ne tey lañ doon màggal seen ñaar fukki atu dund ñaar fukki at nag lu bari la surtout ci wàllu microfinance ndax nga tabax ko ba mu yegg si fii ànd ceeg ñi nga ci war a àndal moo xam mutuelle la moo xam groupement de femmes yi moo xam personne yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo seq liggéey boobu day baax ministère bi nga xam ne moom moo yore secteur boobu mu teew seen wet bokk ci ñi leen di jàppale mais surtout aussi gën leen ñaax ci secteur bi nga xam ne mooy microfinance te nga xam ne seen premier partenaire mooy institution de microfinance yi ñu xam naka la ñu war a gën a mën a jàppalante ban taxawaay la ci état bi gën a war a mën a def pour que service yi nga xam ne institution de microfinance yi de manière générale ñi ngi koy jox jëmale ko askan wi te ñu ràññee ne jigéen ñi ak ndaw yi ñoo gën a bokk ci ñiy jëflanteeg wàllu institution de microfinance yi te ñun ñëpp xam nañ ne euh, ñoom am nañu euh, xadar am nañu volonté mais aussi euh, ñàkk nañu moyen ku mel noonu nag aussi foog nga jox ko ndimbal walla service boo xam ne méngoo naag li mu doon ak ni mu mel loolu mooy yéene président Macky Sall liggéey boobu la ñu sant moo tax ñi ngi wéy di waxtaan ak institution de microfinance yi ba nga xam ne anam biñ koy joxee euh, ci jamono yi ñu fexe mu gën a méngoo ak li ñuy gis ci àdduna bi sànq ñi ngi wax waxu Covid am na yeneen jafe-jafe yu am donc loolu yëpp dañ ko war dëxëñ gën ci ci waxtaan yi ba nga xam ne taxawaay bi nga xam ne état bi mi ngi koy jaarale ci institution de microfinance yi gën a dëppoo ak li nga xam ne ñi koy jëfandikoo moom la ñu soxla jërëjëf merci